ñaata nga joxe. man waaw ah, 24 bi moom la jour moom ah damay joxe moom 5000 rek pour njëgu ganaar. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mbokk internetu sunu TV yi tey nag maa ngi fii tey ci stade Léopold Sédar Senghor tey fii tey laa ñëw ñii laa seet si tey tey nag moom li ma leen indi dafa simple question réponse tey seetiwu ma kenn dew ma fenn lu dul waa stade laa seet si te question bu yomb laa leen di laaj ñu tontu ma tey nag la may xool borom poos yi diis ak borom yi oyof yi xool nan la ñuy doxalee. Ama topp ma. asalaamaaleykum sama gaay yi. maaleykum salaam. ci loolu nekk. sant yàlla bu baax. yaa ngi noos. waaw ñu ngi sant bu baax. loo tudd. man Nourou. waaw xoolal sama caméraman bi xanaa da nga ko ragal. <laughs> caméraman bi maa ngi koy xool. <laughs> tey dafa am lu ma la bëggoon laaj. ah. feet yi ñëw na yow ñaata nga joxe ci feet yi. feet yi nii ah. pour 31 bi ah. waaw ak 24 bi yëpp. moom ñaata nga joxe. man ah 24 bi moom la jour moom ah. damay joxe moom 5000 rek pour njëgu ganaar. 5000 francs wuu Ama yaa dégg man de ku ma jox 5000 sombi laa lay tegal sombi sombi. ci lu ngeen nekk sama gars yi. jaamu sonal sëñ bi loo tudd. man Basirou laa tudd. yaa ci jaam. waaw ah, maa ngi man dama la am lu ma doon laaj. Ah. yow feet yi ñaata nga joxe. feet yan. 24 beeg 31 bi. ñaar laa joxe. joxe ma dara. si loo nekk sëñ bi. maa ngi sant yàlla tur bi naka la. man maa ngi tudd Idrissa. Idrissa dafa am lu ma la bëggoon laaj tey yow feet yi ñaata nga joxe. dëgguma. feet yi 24 beeg 31 ñaata nga joxe. Hmm, noo joxe guma dara de. ah lu ta joxe ko. joxe guma dara. ah doo joxe. ankay naa joxe moo mais xam naa si kanam la daal. mais dama bëgg xam man ñaata ngay joxe man maa la bëgg feeñal man dama laa bëgg a weer maanaam ci àdduna bi weer la ci dëkk bi ne yow sa gel bi temps nga koy jox ci feet yi non sama gel bi moom moom instant bi moom daf ma sori moom moom moo may jox sax. moo lay jox. waaw ah, moo may jox. non boobu duma ko bëgg. ama kaay ni kaay topp ma rek. non yow eh da ngay eh yow waxal ñaata ngay joxe tamit. dama noonu joxe ko. yow de ku la xool xam ne doo joxe. wallaay amuma dara sax. <laughs> dama amul dara lu may. <laughs> waaw kay. <laughs> ku baax. Ah. yow daa mel ne yow yaay borom loxo bu neex bi de. comme yaay sëm. jox ah, naa ko ataaya bii de. ama wuyul xam ngi lii du dëgg ana xale jigéen ñi man waxaguma mu naan joxe ataaya ah mais Sénégal non Sénégal waa garaaw kaay yow kaay e ñaata ngay joxe laa bëgg. joxe naa ko ataaya loolu laa yor. yow ataaya rek ngay joxe. waaw waaw léegi loolu tax. ah loolu laa yor. boo jiyee <laughs> ma doxantu wër benn xale bu jigéen laaj ko ñaata la ko faram bi jox parce que man benn affaire am na góor ñii ma jot a dégg man ñii tax ñu maa jóg ay góor yoo xam ne duñ joxe dara wala ay njëgu ataaya du maag ñoom yaa ngi dégg waaye man mii tamit di wax général bi ñaata la joxe hmm? ak bari dama koy nëbbu seen waa ndax damay bañ ñu tegal ko maf sañ bi loo tudd. man man ma Ndiaye la tudd. waaw dama la doon laaj am lu ma lay laaj. waaw ma de yow feet yi ñaata nga jox sa gel bi. temps yi moom dur ñu wax ne loolu sama wéy péril fi la quoi. sama wéy péril fi la. amaa maa ngi gaañu nee na la waaw kay ama topp ma man jigéen laa bëgg dootuma waxte benn góor maa bëggatul góor ñi maa leen bëggatul. am jaar dafa am lu ma laaj. Ah. sa bi ñaat la la jox. <laughs> dara. <laughs> ça va. oui ça va bien. ci loo nekk. ça va. loo tudd. Dieynaba. daa am lu ma bëggoon laaj. waay sa far bi ñaata la la jox ci feet. non mais j'ai pas de copain. <laughs> ci loo nekk. ça va. sa far bi ñaata la la jox ci feet yi. j'ai pas de copain. ça va. ça va bien. loo tudd. Xadi. sa far bi ñaata la jox ci feet yi. non amoo far de. amoo far yow de nax nga seen waa kër yàgg na. salaamaaleykum. na ngeen def. ñoo ngi fi rek am ngeen gel. man. waaw non man dama sérieux quoi man. loo tudd. man Modou. Modou sa tur bi neex de. waaw Modou Khoule. Modou yaa ngi pare feeti. waaw bu baax a baax. waaw sa gel bi ñaat nga ko jox. non non jabar. waaw sa jabar ñaat nga ko jox. soxna. sa soxna ñaat nga ko jox. loolu moom sama biir privé la ku diggantaan nii a ah, soxna nga am. amoo boo la ak la ko wen. non ce que dëgg la. dëgg la. télé bi la de. na maa ngi ne ma man. ah damay bañ kat nga dem sa kii bi ne la ah doo doo kiiwati. sama jabar rek laa bëgg bëgguma keneen. waaw loolu neex na boobu daf may neex. rek. waaw wax ma sa far bi ñaata la la jox. Ah. waxal rek. ah. janoo cent mille de gum. soxna si loo ne. maa ngi ci jàmm. loo tudd. Bintu. namm naa la de. waaw mu koo xamul fii la am. Hmm, ëpp na. yaa ngi pare feet yi. waaw. dama la bëggoon laaj sa far bi ñaata la la jox ci feet yi. <laughs> sama far <laughs> na. moom Badja yàlla na la laaj keesu Macky Sall ba ma xool ndax di nga joxe waaw kay. keesu uh, bu ma indil ko ko. waaw bëgg naa loolu ci góor Baye Fall maa bëgg lii yaa ngi dégg moom nee na lu ko jabar ji laaj da koy jox. dama yaa ngi pare feet. waaw maa ngi koy pare sama nijaay ñaata la la jox. doxaguma dara. man nag yàlla def maa nattu quoi xoolal ay ndijaay boolaam. waxal waxal bi laay. barki yonent yàlla maa ko wax barki youtube. loolu la yàlla def. ci loo nekk. ca la ma ne woon. Tons am na lu ma la bëgg laaj de. boo ma ko laajee ma tontu la. dina ma dis mais ma laaj la. bisimilah yegg si. sama mpaañ ñaata nga ko jox. way Tons daa tiitoon pour moom lu rëy laa koy wax. yow man ngay saraxe man ngay wanteer ah. kay wanteeru la dama laa saam. moom rek laa bëgg ci sama xol bi nag mooy aw buuru këram. yonent yàlla aw boo xam du taalaate. mooy sama tan xi na mbax bi tax moom lay wër ba sagar xeeñ fi ma jàpp may jooy moom rek moo ko xam. man daa général bi yàlla mel ni yow. déedéet kay lu tax nga wax lii. parce que ni nga koy ni ngay taggee nii sama umpaañ daf ma neex. fi ma jàpp may jooy maa ko xam. ah d'accord nga ko jox. Euh, ci ci noonu. ci feet yi. joxaguma ko ndax Banjul laa jógee nii fa laa war a dem Thiès fa laa war a feetoo bu soobee. tamit ton ton sa joxe ko métti gi joxe ko. ah déedéet démb ngoon laa war a dem Thiès fa laay fanaani ci moom. wala ñaata nga ko war a jox ñaata nga ko nar a jox yow. kooku dama naan loo bëgg rek ma def ko. léegi bu la laajee keesu Macky Sall ma sàcc ko jox ko. barke yonent bi. billaahi wallaahi. sàcc nga wax de. dama bëgg kooku lu man fay war du maa la doon interview bi de. kooku lu mu bëgg dama ko koy defal. Macky dégguñu moo tax nañ ko jëw rek. Macky muy mel ne James Brown <laughs> wuy sama ndey moom nee na keesu Macky Sall bi la nar a jël keesu Macky Sall bi nee na moom lay jël jox nga far kay ñaata la la jox di ko wax de xam nga xale dañuy nëbb seen yaay seen ay far loolu ku ne jaaroon na ci ma xaman mii dama ko daan def temps booy di farantu di ko nëbb yaay tons waa dama ko daan nëbb waaw léegi maa ngi ci benn waaw xale fidèle maa ngi noonu waa su ko defee nag fii la sama ndiyaay moom moo tëj sama émission ndax moom la mu wax yëpp ci keesu mag Sall man maa ko bàyyi ndànk xam nga bu ko defee dama leen jox dig daje ci beneen beneen gox ak yeneen nit ak yeneen i kanam ak yeneen i soli nag ñoom seen ci sunu TV man Fatima maa fi jaaroon di leen jox dig daje ba beneen yoon peace and love je love ah.